naqsa bandi noonu rifaa yi noonu rifaa yi noonu murida noonu murit noonu ñëpp noonu ñëpp noonu te ñu bàyyi fi baatub laa te ilaha waaye nu illa allah àndaloo dëppoo te bàyyi fi baatu laa ilaha illa allah su jotee ñu daje ci su jotee nu daje ci waaye samp ay mu assasaat waaye samp ay mu assistaat mu jural ñu teqali ko mu jural nu teqali ko bàyyi laa ilaha bàyyi illa laa ilaha illa allah Loolu jaadu- dara dara ko dara jaru ko.
tànk réew maa ngi doxee nii te réew maa ngi dox
Dara du fi sotti. dara du loolu dara du fi sotti fi sotti kon kat bu dee doxee nii dara du fi sotti gannaaw loolu gannaaw loolu xew-xew bii fi am nu muy bu rëy lool ne xew-xew bi fi am muy xew-xew bu rëy lool
metti na ne dëgg la metti na te it jaaduwul te jaaduwul metti na ne metti na te jaaduwul te jaaduwul metti na metti na te jaaduwul jaaduwul waaye du yàlla de waaye nag du yàlla de
ñun rek ñoo ko def nee nun rek ka ko def nooy sabab bi al jazaau min jinsil ama min jinsil amal fay gu nekk ne xeetu la la la- kañuy fay xeetu la mu def jàll ko ne fay waaye ku ñuy fay xeetu la mu def moom lañ koy fay lu mel noonu ba wecc nañ ko delloo waaw ku rey nit suñ la rey loo ci yërëm ne ku rey ba nag suñ la reyee lan gi sa yërëm est-ce que ñun ñoo ko yàlla yërmande ne ëpp nu yàlla yërmande ci jaam yi déedéet ëpp nu yàlla Mënul yërmande nekk.
ne mënul nekk am na ba noppi ne am na ba noppi naqadi na naqari na waaye yàlla nañu yàlla jox ak liimaan yu ñu ko dékkoo waaye nag yàlla na yàlla jox liimaan yu ñu ko dékkoo tawul suñu borom tabaraka wa taala ne taw suñu borom tabaraka taala
ndax Mauritanie ak Sénégal mënuñu teqaliko ne ndax Mauritanie ak Sénégal waaye mënuñu teqali ko ay nit a nga foofee ci Mauritanie ñi ñu yaakaar a ngi fii ay nit añ ca Mauritanie ñu ñu yaakaar ñëpp ñu ngi fi Sénégal ay nit a ngi ci Sénégal ña ñu yaakaar a nga ca Mauritanie ay nit añ fi Sénégal ñu ñu yaakaar ñu ngi ca Mauritanie bari na ñuy yaakaar fii tey la ñu am ca xam-xam soo ko seetee daf fekk xam-xamu Mauritanie nekk ne bari ñu yaakaar fii la ñu am ci xam-xam boo ko seetee rek fekk xam-xamu Mauritanie nekk ca ca fale it am na fa xam-xam yu fa nekk soo ko seetee fii daf fekk mais xam-xam yéen bàyyi ko Mauritanie fii am na xam-xam yu fa nekk yoo xam ne soo ko seetee da xam ne xam-xam yooyu fii la bàyyi koo dem ci ñoom ba ci turu yàlla ba ci tur yàlla yi ak wàllu yàlla ak wàllu yàlla loolu yàlla ko def loolu yàllaa ko def kon teqali ko mënul kon teqali ko mënul am waaye ki nga xam ne lu ko soob moom waaye ki nga xam ne ci lu ko soob mu am il faut que moom il faut la ko soob am wa ma shaa kaana wa ma lam yasha fa mumtaniun kayfa shaa hakama Sunu wa borom.
yafalu fi mulkihi ma yasha taala al ilahu wa jalla al hakam kenn mënu ci dara ne suñu woon tabax saa daal moom lépp lu ko soob ak nu mu mën a meeg lu mu la naqar naqar rek lu ma neex ne la ko soob rek kay am kenn mënu ci dara ida jaa al qada daaqa al fada yàlla ne su ne nii la fenn ngay wuti fu leer dootoo ko am yàlla nee na su ne su yàlla nee nii la kat ngay jóg di wut feneen fu leer Faraw.
doo ko am Faraw.
mukk de. Faraw.
sotti du sotti doo ko am mukk kon nag mbir mi looloo ci kon nag mbir mi looloo ci am yàlla na yàlla dimbale président yi yàlla yàlla dimbali président yi
jaarale leen ci yoon woo xam ne wii kenn ku nekk daa wàcc jox yàlla cëram njaboot gi jox leen seen cër kenn ku ne daa wàcc jox yàlla cëram njaboot gi nga joxlee seen cër am na nag loo xam ne fekke naa ko mën naa ko wax fii ne am na lu mu fekkee mën na ko wax fii ci mbir mi ci mbir mi maag Cerno Muntaxa moog Thierno Mountakha
toog nañu ñaari yoon ak président ne toog nañu ñaari yoon ak président de la république
ci ci xew-xew bi jëkk a xew ca fa ñuy wax njawara xew-xew bi njëkk a xew ca fa ñuy wax njaawara
ñu waxtaan ci ak président ñuy waxtaan ceeg président
yëg naa boobu moom président ci boppam ne yëg na boobu moom président ci boppam ay yoon yu mu téléphoné euh, euh, euh, hein? Maawiya ne yëg na ci moom mi ay yoon yu président bi téléphoné wul taya fel téléphoné wul taya ci mbir yooyu ci mbir yooyu ci booba loolu rekk te xew booba loo rek a xewoon ñu dellu at fa mag Cerno Muntaxa mu delluwaat fa moom mi moog Thierno Mountakha fekk ko ci position position bi mu wax fekk ko ci position bi mu waxoon rek mu ne ñu man man laay mën naa tëb dal ci mu ne wallahi mën naa tëb mbiri xam mën naa tëb rek dal ci waaye comme que Sénégal ni su jàmm lañu.
waaye comme que Sénégal ni fi jàmm lañu te yàlla jàmm la te bëgg.
yàlla jàmm la bëgg na na ngeen ñaan na rek.
ngeen ñaan rek ñu nit ñu bokk góor.
maa ne jàmm laa bëgg nu bokk góor waaye góor wa yaba allahu illa ma arada.
waaye nag loo ba bëgg sunu borom li mu nag na ma rek ay am yàlla ne.
yàlla nee na yabna aadama turiidu wa urid.
yow doomu aadama da nga na man sa borom ma nam in tattabicni fi ma uridu actaytuka ma turid.
su fekkee ne topp nga ma ci sama nam man man sa borom ma jox la li nga bëgg yow jaam bi in lam tattabicni fi ma urid.
su fekkee toppoo ma nag ci sama bëgg-bëgg man sa borom أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما ma أريد.
sonn loola lool sa bëgg-bëgg te li mu bëgg rek kay am li nga bëgg dara du ci am li taxit ma ne ñun ñëpp nañu am ommatu ci li yàlla def te ñaan ko mooy li tax mu ne ñun ñëpp nañ bokk àndandoo ommat ci li yàlla def ba noppi tey nu ñaan ko teg ca te suñ fa jóge ñuy wattandi ko loo xam ne dana jur musiba te suñ fa jógee nuy wattali ko loo xam ne dana jur musiba yàlla ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqab rey nañ ci mbir yoo xam ne da kenn deful dara sax ne kenn deful dara ne kenn deful dara waaye nag da ngeen nag wattandi ko si dari boo xam ne bu jógee dana laal ku ca bokk ak ku ca bokkul da ngeen ko wattandi ko lool ñooñee demoon ci Mauritanie loolu yóbbu leen fa woon ñooñee dem Mauritanie dafay xëy yóbbu leen fa woon ña fa jóge ñëw fii li leen li fi am xew yóbbu na fi mais li ñëpp a jógee ñëw fii li ñu xewoon indiwu leen fi kon nag ñu xam ne yàlla kon noonu xam ne mbiri yàlla dafa am benn waay nee dafa am benn waay benn waaqi abu baal leen ma de yàgg na baax na lool bu mel ni am dafa am benn waay benn xew-xew bu mel nii bii am waa xew bu mel nii am benn waay bu bari solo benn waay bu bari solo koo xam ne lu nekk yoonam nekk koo xam ne lu nekk yoonam a nga ci mu ne waaye yàlla dañu wax ne ku bari yërmande mu ne man de dama waaru yàlla mi dañ ni ku bari yërmande la kon lii na mu mën a amee ko kon nag ak yërmande ju bari yëpp lii la mën a amee yàlla yebal benn jëmm yàlla yebal benn jëmm wala moom ci boppam mu waxu kooku wala sunu borom ci boppam wax kooku waaye na mu mën a mel waaye daal nu mu mën a mel rek la waajo doon dégg waxam ci moom la la waajo doon la ka- ka waajo doon déglu waxam ka waa ji doon déglu waxam jëmm jooje haatif lañ ko tudd jëmm joojee doon wax waa ji di ko dégg aasib la tudd haatif mooy koy wax nga di dégg wax ji waaye gisuloo jëmm aasib nag mooy koy wax ngay dégg wax seen gisoo jëmmam foofu le arab yi abbale téléphone tuddee ko haatif foofu la arab yi abbale téléphone bii nuy defante tudde ko aati guddi gi yëpp nelaw guddi waa ji guddi gi yëpp muy xalaat nelaw benn waay na ko hey eh benn waaye aati bu waxante ak moom ni ko eh da'i l i'tiraba fama l amru lak wala l xukmu fi xarakati l falak wala tas'al illaha an fi'lihi faman xaaba lujjata baxna la lii ngay def ci sa xel mi bàyyi ko li ngay xalaat ak da ko def sa xel bàyyi ko takku suuf yàlla ajul daraam ci daraam yàlla ajul daraam ci daraam yàlla ajul dara ci daraam yàlla ajul dara ci daraam loolu mooy lan loolu mooy lan yàlla ajul mbiram ci mbindeef yi yàlla ajul mbiram ci bindeef yàlla ajul mbiram ci asamaan yi yàlla ajul mbiram ci asamaan yi ak li ca nekk ak la ca du nekk yi di yëngu na nga def attention ne watul sa bopp defal attention loo mën mën feeñ loo mën mën a feey lëgg-lëgg ngi ci am géej na lëgg-lëgg bu nekk ci biir géej bu ca dem bu ca dem dara du la ci dara yóbbu du la ci yóbbu lu dul wootal sax lu soytaal rek dee rek waaye doo génn na nga ko wattandiku ñu jàppee ko noonu nee ni jàpp mbir yi noonu yal na ko fi yàlla yemale fay ko ba mu sedd lool lool lool yàlla nag fi yàlla yemale fay ko it ba mu sedd lool ci daraja ci daraje rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam delloo mbir yi fa mu nekk mu delloo mbir yi fa mu nekkoon ñi dem yal na ko yàlla def seen kafaara ñi dem yàlla ko yàlla def muy seen kafaara def ko muy póot def ko mu leen póot def ko muy njëggal def ko muy njëggal bañ leen topp bañ dara leen topp dara ndax daanaka suhada lañu ndax daanaka ñooñu de ay suhadaaw lañu dafa rëy def ndax mu bëri la deq ren bi nit tër nit di ko dekk rek booleeg alal yóbbu bari alalam yóbbu ah lu rëy la lu rëy rëy yàlla na ci yàlla mu te it sotteegul te it kat ne sotteegul benn taalube Seydi El Hadj Malick ca Gosaas mais benn taalu Seydi Haaji Maalik ca Gosaas
kilifa la ci ñun kilifa la ci ñun
jabaram daf ko jàppoon fekk mu ngay waaj dem jàkka ja nee na fekk ma ngay waaj jàpp fa nag pare dem jàkk ja muy def ni loxoom nee jawri jàpp ku muy xëcc loxoom ne ko ca xol wala nekk dara te ba mu fekkoo moom góor gi mu dee loxoom dafa daal ca xolu soxna sa mu dee déglu leen tuuti waxtaan wi am na solo lool mu yëgal ko Seydi El Hadj Malick ñu yëgal Seydi Haaji Maalik di ko góor kat diw kat ca Gosaas rëy ni sababu dee ndaw sax ci loxoom la bàyyi ko mu ne ndax ko daal na ko góor gi ne ko atte bi ñett la Seydi Haaji Maalik ni daal atte bi nag ñett la benn bi yaag yàlla képp benn bi nag yaa yàlla képp benn bi suñu sariya benn bi nag suñu sharia la benn bi yaa ki yàlla dénk suuf si muy gouvernement bi benn bi nag moo yaa ki yàlla dénk suuf si muy gouvernement bi suñu bas suñu xaaj may suñu bos nu ñu gëstu téere yi nu gëstu téere yi ba xam suñu diine lu mu ñu sant ba xam suñu diine lu mu nu ci sant bi ci des di ci des ñu ngi ci loxol mu gouvernement ci bi loxol gouvernement bi yoonu Malick yoonu Malik nekkul dénku ñu ma réew dénku mi ñu ma réew mi bi ci des di ci des yàlla yàlla jaam la jaam la jaam nga jaam nga jaamam jaamam ki nga rey jaamama dëgg la xataa la dëgg la xataa la te waaye yow xamaguñu ndax yàlla dana jégal waaye xam ndax yàlla day jégaleen déet mbakka dafa foor dafa rëy loolu rek la loolu rek la ci gannaaw loolu ci gannaaw loolu nag
maa nit maa ngi yëkkati kaddu goo xam ne ngërëm lay doon ne moom it nag mi ngi yëkkati kaddu goo xam ne ji ngërëm lay doon
pour sante ko xale yi nga xam ne doon nañu yëngu lool te ci lu bari ci ñoom la jaar di ko sant xale yi nga xam ne ñu nag yu réew mi doon nañ yëngu lool te yëngu réew mi yëpp ci ñoom la jaar
waaye ba ñu waxtaanee waaye ne ba mu waxtaanee
am na lu ma leen adressé am na lu mu adressé xale yi ci réew mi yëpp fa tabarakallahu fa tabarakallahu du ma dara ne ne moom ne du dara waaye am nañ ci man cofeel waaye nag xale yi ci réew mi yëpp bokk nañ man ko am ci moom cofeel loolee ñu nangu ko lee ba mu yëkkatee kàddoom la mu wax ñëpp nangu ko kon nag duma man lu dul ñaanal leen jàmm ñaanaat leen ñu gën a calme xam ne incha allahu taala yàlla ci mbaaxam dana rek la mbir mi incha allah ne ko nag du man lu dul nag sant xale li réew mi yëpp ñaanal leen yàlla yàlla may leen taxaw yu dëgër ñaanal leen it nag ñu gën a calme gën a calme gën a calme ndax incha allah mbir mi suñu borom dana ko leeral ba mu leeral nañ li ci war dana am ndax ñaari président yi ba tey ñu ngi nekk di yëngu di fekk ndax ñaari président yi ba tey ñu ngi nekk di yëngu ak di seet ñun ñaa ngi saraxe di ñaan nit ñëpp it ñu ngi bokk di sarxe ak di ñaan kenn ku nekk yaa ngi am yéene bu rafet di ci wax kenn ku ne yaa ngi am yéene bu rafet di ci wax ba ci Cheikh Diagne mi am na lu mu ci ba bind ci alaaj Cheikh Diagne mi am na lu ñu ci bind su ko defee su nag ko defee nag ñu ne tekk te ñaan mais ñëpp bokk ne tekk rek daal te ñaan xale yi it ñu yërëm leen bàyyi leen ñu dellu ci seeni kër ci ayib ji xale yi sëñ bi leen ñu yërëm leen bàyyi leen ñoom ñëpp ñu delli seen kër ci julli ji ma di leen dollee ñaan na ma leen ko waxee woon seen collaborateur seen ami bu ñu wax Abdoul Aziz mu ngi delloo nag di leen ñaan yéen xale yi yëpp seen collaborateur seen wajur seen xarit bu ñuy wax Abdou Aziz Sy fii ngeen toll ci position ci lii nga xam ne moo am ci Sénégal na ngeen ci jàpp te muñ te dal insha allahu taala ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ataala alfaraja yàlla na ko yàlla def.
mais mu ngi leen di ñaan fii ngeen tu fi ñu toll ci Sénégal ci position mu ngi leen di ñaan ngeen ànd ak dal ak tey ci position ci position bi ngeen amee ci Sénégal tey it ñu ngi ñaan yàlla incha allah mbir mi yàlla na ko wuññi ba mu mujj nekk yiw ci yéen ak ci ñun ñëpp.
xawma lu ci xoolu ñaari président mais xamul de moom na ci xolu ñaari président yi waaye wóor na ma ne fi ñu lekk nekk lekkatuñu naanatuñu ndax responsabilité bi dafa rëy waaye daal wóor na ko daal ñoom ñaar fii nekk dëgg dëgg lekkatuñu naana fii ndax responsabilité seen kaw dafa rëy rëy na dafa rëy dafa rëy de dafa rëy de mbir mi tuutiwul mbir mu tuutiwul taxsibunahu hayyinan wa inda allahi azim dañ jàpp ne lu woy- lu woyof la yaay daal lu rëy fa yàlla la ci mbirum sëttina Aysa la ko yàlla wax ci mbirum sutna Aysa la ko yàlla waxoon taxsibunahu hayyinan da ngeen ko jort muy lu woyof da ngeen a jortoo mbir mi ne lu woyof la muy mbirum sëttina Aysa ci mbirum mii sutna Aysa ak wax yu bon ak wax yu bari ci am wa huwa te mbir mi te fekk na ngir mi azimun aji màgg la inda allahi ca yàlla mi leen bind lu màgg la fa yàlla mi leen bind
mbir mi it noonu ne mbir mi it kat noonu la dëy bu rëy la ne lu rëy la lu rëy la lu rëy la yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm xale yi daal maa ngeen di dénk xale yëpp yéen Sénégal xale Sénégal yëpp mi ngi leen di dénk jàmm ak dal di leen sant ci li ngeen def mi ngi leen di sant ci ni ngeen def ñu ngi delloo ziyaara ak ndokkeel kilifa yi ne mi ngi delloo ziara ak ndokkeel kilifa yi yëpp asalaamaaleykum. waaw loolu loolu war naa ci taxaw bu war na baax ci taxaw bu baax
ñu ngi gërëmit chef d'état yi ñu jàppale ne mi ngi gërëm it mbooleem chef de taay yiy jàppale Sénégal yëpp ci dimbale leen surtout ci avion yi ñu yónnee ci dimbali leen rawatee rek ci avion yu yónnee ci Sénégal Chazli bun Jadid nee Cheikh bun Jalil bun Jadid bun Jadid mi nga xam ne mooy raisul jumhuriya al jazairi muy mi nga xam ne mooy raisul jumhuriya ja- Jazair Ah, ci- ah, Algérie Algérie.
ci Algérie fa tabarakallahu tabarakallahu seen xaaliqin def na lu baax def na lu baax waxuma sax loolu waxul sax loolu waaye am na loo xam ne waru ko waroon naa ko fekkee ndax ca la bokk ne am na loo xam ne lii moom waroon na ko fekk ndax ca la bokk ci ndimbal lu rëy lu baax lu mu def ci juma Cheikh Al Hadj Omar ji Thierno Mountakha di taw ci ndimbal lu rëy lu mu def moom Sall bin Jarir ci jumaa Cheikh Hadji Omar ji kenn mu taxay taxaw te ñooy waroon taxaw pour nangu ko ca la kenn bokk ñu war a taxaw pour nangu ndimbal loolu ca loolu bokk waaye dama wéradi waaye nag wér dee tax ñëwul te xam ne Thierno Mountakha dina ko ñi nangu nga xam ne kenn mu taxay nangu na ngànt kon loolu man ci sama bopp sax jaadu na ma bind lettre Chazli bin Jadid jaarale ko ci seen ambassade pour sant ko ci taxawaay bu rafet boobu ne kon nag moom ci boppam jànnu bind Cheikh bin Jarir am jaaree ci ambassade bi ci taxaw bu rafetaay bu mu taxaw jullit yëpp la ko defal ndax kat la mu def moom bu- bu- buuru Algérie jullit yëpp la ko defal tarixa ka nekk ci bopp baakoom waaye jàkka sa yàlla moom waaye waaye tarixa ni ci bopp bàkkoom waaye jàkk yàlla ko moom kenn moomu ko kon nag ñëpp war nañ ko kon ñëpp war nañ koo son mu teg ci lii mu def mu teg ci lii mu def nag Sénégal ñu gërëm Assane de ñuy ju gërëm Hassan II Assane de su ma ko gërëmee dina am tuuma ne Hassan II moom bu ko gërëmee sax dana am tuuma
ndax diggante bi dafa yàgg ndax diggante bi dafa yàgg lool waaye waaye nag sama diggante ak Assane yàlla rek la diggante Hassan II yàlla rek la ñu soppante David dafa sompanteeg moom yëgal leen ne masuma dem Maroc durus yàgg damay teew suñ leen nuyoo ma joxante moom loxo ñu toog ba tas waaye duggaguma ci biir këram ne mbo nañ yéeg ni rek bu demee Maroc day nu yoon teeg moom waxtaan ak moom jàmmanteeg moom waaye biir kër sax du ko guf waaye xam na ne ku bari xam-xam waaye xam naa ne ni kilifa gu bari xam-xam la kenn rawu ko kenn raw waxuma ci ci at ci affaire u adduna de waxul affaire adduna de waxuma ko de.
dëgg dëgg la am waxuma ko de waxul de waxul affaire adduna xam-xam xam-xam yi nga xam ne xam-xam yi nga xam ne moom la nit di amee door a bokk ca gaaña moom la nit di amee door a bokk ca gaaña moom la asan do moom la am Hassan da ànd boole ko ak ñaw boole ko ñaw gu ma sëkk ak dal ak dal gu ma sëkk ak mën a defar mbir ak mën a defar mbir fonk xam-xam fonk xam-xam fonk borom fonk xam-xam borom xam-xam loolu moo tax man ma bëgg ko ay bëgg na ñëpp itam.
looloo tax nag bëgg na ñëpp sax waaye loolu bo da ra- doole na ci li tax mu bëgg ku moom te it ambassade yi ci Sénégal yëpp am na ci ñu bari ñu ma gis am nañu naqar lool ñëpp a ma koy métti nee te ambassade yi ne ci réew mi yëpp bari na ci mu gis loolu ñu ci moom waaye ñëpp am nañu naqar te di ko métti te waxuñu ma lu dul yéen ñëpp ànd leen ngeen ñaan te que yooyu ambassade yi yëpp wankul sëñ bi yéen ñëpp bokk na àndandoo ñaan yàlla te pexe mu ngeen xam def leen ko te pexe mu ngeen xamit def leen ko mu ngi ànd ak yéen ñu ngi ànd ak yéen bokk na ci bokk na ca ambassadeuru Arabie Saoudite ah bokk nañ ambassade arabu saoudi al Cheikh Ali Cheikh ñëw ne fekk ma jot sax ñëw na fekk si ko jag saabu ànd na ak ambassadeuru Liban ànd nag ambassadeur Liban ànd na ak ambassadeuru Palestine ànd nag ambassadeur Palestine ñi ko ñi fi nekk di ay ambassade te bokk ñoom ñoom diine ñi fi nekk di ambassade te bokk ñoom diine wax nañu ci ñu wax nañu ci
France wax na France wax na ci pour dimbale na leen pour dimbi dimbale leen leen it kii nga xam ne chrétien yi fi nekk moo nekk seen kanam ki nga xam ne chrétien yi fi rek mooy seen kanam mu di Sandoum mooy candum yónnee na ma ndaw ne ak sa candum yónnee na ko ndaw ne mi ngi may ñaan Ni- man ci sama- ci diggante ak man ne mënu ko mi ngi koy ñaan ci diggante moom ak candum te am na yaakaar ne su ma ci waxee dara dana baax te am na yaakaar ne su ci waxee moom mii dara baax ne naa ci ñaan ne candum ne sëñ Ibra dinañ ci ñaan wax na ko wax na ko yónnee na ci moom daa wax ko ca weer wale ne ca weer wale ndawam lii nekk Thiès ndawam li nekk Cees yabal si na ko ci man pour mbir moom yi yebal si na ko ci moom mii mu fekk jakkaan ci mbiru moomu li il faut que loolu ñu waxtaane il ko faut que ñu waxtaane ko ci àddina bi ñu dëkku ñëpp xam ne seen itte la ñëpp xam ne mbir mi xew seen itteel Euh, Cheikh Saad bu nga nuyul ñu président Cheikh Sadibou Diouf ala jabdu ne soo demee nga ne ko président de la république ne ko famille bi yëpp a ngi koy ne nuyu ko famille bi Cheikh Hayma ñëpp a ngi koy nuyu ñun ñëpp a ngi bokk di ñaan ñëpp a ngi bokk taxaw di ñaan li ma lay wax di ko wax rek ne li mu lay wax di ko wax rek rusuma ko wax fii ne rus ko wax fii man daal ne moom daal buuma ngi ci sama baat pour mbooleem jaami yàlla yi ni ko sama baay daan waxe ne buumam ci baatam ci mbooleem jaami yàlla yi yëpp ni ko bàyyi Sidi Haaj Maay daan wax Seydi Xaaj Maay dal ne amul lu dul xolam Sidi Haaj Maay ne amulul xolam ki ko ki ko sëpp di ko yéer moo ko gën a gis lépp te ki sëpp xol bi di ko yor moo gën a gis lépp kon nag du ca def dara lu jaaduwul ndax léegi koo ko jàppe ko te kon nag du ca dara lu jaaduwul ndax léegi ko ko jàppe ko mu ne sama ndaw li fi nekk mu ne góor gi ne sama naw lañ fi nekk ku ci nekk ku ci nekk maa ngi fas yéene jëfanteeg yow lu ëpp li may jëfanteeg sama bopp maa ngi fas yéene jëfanteeg yow lu ëpp lu may li may jëfanteeg sama bopp saa si Malick Seydi Seydi Haaj Maay Xaaj ko wax de di la xaritoo maa ngi lay xaritoo di la bokk di la bokkoo man jaam la pour yéen ñii fi daje man jaam laa pour yéen ñi fi day man murit mat na mu- murit man na mën na ko soo jëlul yaa tooñ sa bopp moom de ku jëlul yaa jël yaa to- yaa tooñ sa bopp xaadir man na xaadir mën na ci moom xam ngeen xaala da nga xaar xam ngeen moo ku koy rëbb da nga yóbbu fetal déedéet du da nga koy fekk fa mu nekk rek da nga waaw yóbbu yaay dox fekk du ma jóg Abdou Aziz am nga daal daal melaw xaalis ci jullit leneen lu waay jàpp lan waay jàpp yaa ko jàpp yaa ko jàpp waaye nag waaye nag doy de l'islam te l'islam moom ci daan ci ànd li rek la wax loolu rek la wax de ñun ñëpp suñu jógee xalaat ne su ñun ñëpp bu ñu jógee lu xalaat su ma bajee yam fii dem bañ a yem fii waaja ne ne waaja wax ni wa qaddimi al ahamma inna al ilma jam wal umru dayfun zaara aw tayfun alam la la gën a itteel ne la la gën a itteel ne jiital ko ne waay jiital ko dund dund gan la gan la dafa jaar day dem yoonam rek wantahi bil fursa ma amkana ne na nga pare fi soo ci occasion occasion bi nga am dañu wax ne te mu jàppale ci su taal.
asamaan wàccee ba jegal ne ne ni asamaan bu wàccee ba jigéen la laalal boo amee fu la laal ku te laale ko ndax xamuloo dana wàccar wala ndax xamu asamaan dana wàccaat wala déet booleel ca xam nga it ni soon da su fekkee dana wàccaat it xamuloo ndax dana boo leen ci xam nga nag xa- bu fekkee dana wàccaat xam wàcc gi dana fekk wala déet man daal su doon sama sago ne- te ma nekk ko moom daal bu leen sagom ne te maneef ko def suñu xel nu def suñu xel doontele ay commission la doonte le nu def ay commission
ñu ñaan ndim ñu dajale ay ndimbal nu dajale ñun ñëpp dafi commission day laaj ay ndimbal yëkkati ko teg ko ci loxoy ay kilifa ñu yëkkati ko teg ci loxo ay kilifa ci dëkk bu nekk lañu laaj ci dëkk bu ne la ñu laaj
ka fa nekkal gouvernement bi ka fa nekkal gouvernement bi di ndawam mu di préfet muy préfet muy gouverneur muy gouverneur muy sous préfet muy sous préfet ak mag ñu baax ñi ci ak suñu mag biir ñu baax suñu biir lu ñu dajale dañuy dajale ñu ne dëkk sangam ñoo def ñu ni dëkk sàngam kat duple ko ñoo def nangam dimbale ko suñu mbokk yi nga xam ne natt bi dal na ci seen kaw dimbale dimbale ko suñu mbokk yi natt bi daal ci seen kaw ñu teg ko ci loxol gouvernement bi ñu teg ci loxol gouvernement bi ndax loolu rafet na rafet na lool ah Cheikh rafet na rafet na defe rafet na lool baax na de baax na lool du wàññi dara déedéet rafet na lool nañ ci taxaw nun ñu ñëpp ci taxaw ñëpp ñëpp ñëpp lillahi ñun ñëpp ñëpp man daal li ma bëgg mooy ñaan rek moom daal li mu bëgg daal mooy ñëpp ñaan rek lépp lu ngeen ma sa dégg ma wax ko ci rajo bi cawateesal leen ko lépp lu ngeen ma sa dégg wax ci rajo bi cawakan jot ci leen ko du jógewul ci man di jógul ci moom man ndax man xawma ci yàlla dara ne ndax ne moom ne ak xamul ci yàlla dara waaye jaamu yàlla bu dëkk ci bitim réew waaye jaamu yàlla bu dëkk ca bitim réew ñu wax ko lëf ne na ko jaare ci ñuy man wax ko lëf ni ko jaare ci moom yoo man lu dul lu ma dul def ko bokk na ca bokk na ca wax naa ko wax na ko nit bind ma lettre nit bind ko leeta yónnee ma ndaw yónnee ko ndaw ne ma ni ko ne nañu na nga digal réew mi nañu joxe saraxte ñaan ni ko sëñ bi wax nañu ma ni na nga digal réew mi yëpp nañu bokk joxe sara sarax te ñaan defe naa wax naa ko ne wax na ko nañ ñëpp joxe sarax te ñaan ñu teg ca ne fas nañu yéene gisi ngelaw la dal jaaxal nit ñi bu yàgg na de ñu tekkee ne kat parce que yéenee gis ngelaw loo xam ne bu dikkee dana jaaxal nit ñi ndax yàlla def ci sutura ndax yàlla def sutura ca ngelaw la loolu war nañ ko gëm loolu war nañ ko gëm te ñaa jullit ñaan mooy gànnaayam ne jullit ñaan mooy gànnaayam yal na yàlla ànd ak ñun yal na yàlla ànd ak noonu ci lu ñu koy ñaan yal na yàlla yal dimbali na yàlla dimbali moom daal buñ ko yemale ci kenn moom daal buñ ko yemale ci kenn fii mu nekk léegi fii mu nekk léegi kenn ku nekk kenn ku nekk na jàng fatiha na jàng fatiha salaatu ala nabi jàng salaatu ala nabi bu man benn xul wallahu ahad mu teg ca qul huwallahu ahad benn yoon ñu def ko hadiya ñu def sallallahu hadiya alayhi ci sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak njabootam ak i xulafaam ak xulafaawam ak asxaabam ak asxaabam suñuy sëriñ ak suñuy sëriñ ak seen njaboot ak seen njaboot ak suñu way dawe suñu way dawe ak bokk yi dem bu ak yàggul mbokk yi dem bu yàggul yàlla yërëm leen yal leen yàlla yar nag ko rek jàng teg ca teg ca li ilaafi ñu quraysh tekki li ilaa fi quraysh suñu ak see ji ba ci wa amanahu min ñun ak xawfin wa amanu min xawfin ñu wax wa amana amanahu min xawfin ñetti yoon nu wax wa amanu min xawfin ñetti yoon loo loola sàn loolu nag ñu fas ko yéene jàngal suñum réew loolu nag nu fas ko yéene jàng li daal suñu réew ak réew yëpp ak réew yi yëpp ak suñu bopp ak suñu bopp ak suñu njaboot ak suñu njaboot suñu kilifa yi diine suñu kilifay diine suñu kilifa yi ak suñu kilifay adduna àdduna. jàmm am jàmm ndax jàmmaam te it bu ñu fàtte nawet te nag bu nu fàtte nawet bi bu ñu fàtte bu nawet nu fàtte nawet bu ñu fàtte bu nu nawet fàtte nawet
ah gouverneur baal ma dem il faut que suñu dee waxtaan li ma gis te defe na baax na dana waaw waaw mais bu moo dem waxtaan daal li mu gis defe dana baax ba mu wax ko jullaanu ci jullit ci laabiri ci jullit yi yéen a ngi def ses yéen a ngi def lu nekk yéen a ngi def lu nekk ñëpp a ngi def lu nekk ñëpp a ngi def lu nekk waaye ki amee waaye ki amee mooy yàlla mooy yàlla yal na jëfanteeg ñun ci yërmandeem yàlla na jëfanteeg nun ci yërmandeem dafa am benn nitu yàlla bu ñu yaakaar lool dafa am benn ci yàlla bu ñu yaakaar lool nit ñi di def ci moom kër kër ñun ñuy def ci moom kër kër kër yàlla ne ko yàlla ni ko ay sama jàmbu kàccoor bi mii rek sama jàmm kàccoor bi maa yow rek ma xam ko ni nga kàccoor su ma la wuññi woon tey bu ma la wuñ woon kenn dootu la topp kenn dootoo la topp mu ne ko soo ko defee mu ne mu jàmbani suñu borom soo ko defee ma wax jaam yi li nga denc ci yërmande ñu di la may te doon soo la nga dugal ma leen wax àjjana jàmm ni leen ni nga baaxee li nga denc ci yërmande ñëpp di la moytu bu ëllëgee nga yërëm leen dugaleen ak sama borom ne ko noppi suñu mu fàllu noppi ka kon nag nopp naa ma nopp kon nañ ñaan sutura yal nañu yàlla suturaal yal na yàlla suuf yal nañu yàlla suturaal dama bëgg nee dafa bëgg ci li nga xam ne xam nga jamono bi neex nee jamono bi neexul yéen fa tabarakallah yéen nit fa tabarakallahu ci lu ma seede ci lu mu seede moom lépp lu ma leen di wax nag dafa nekk lépp lu mu leen di wax nag lu nekk la waaye li ma leen jur jur ak li ma leen bëgg bëgg waaye nag kat li mu leen di jur jur yëpp ak li leen di bëgg-bëgg yëpp du ma leen wax mukk loo xam ne dana nekk di fen pour bëgg lu leen neex yàlla jëpp dana leen wax lu wax du leen wax mu ko waxee day nekk du nekk dëgg su ko defee ngeen jëpp ko yàlla jëpp ci ko ci gannaaw bi nga xam ne maa ngi yaakaar ne lu ñu waxtaane te mu jëm ci réew mi ci gannaaw bi xëy na lépp lu mu waxtaanee ci mu jëm ci réew mi te mu gën ci te mu gën ci man nangu ci ànd ak yéen mun nangu sa ànd ak yéen yéen it kazalik yéen it yéen nañ ci ànd ak moom maanaam nit ñi fi ñu nekk mbay dafa jot ne fi mu nekk nit ñi mbay dafa jot te mbayum Sénégal ci leen nit ñi daan amee dara te mbayam Sénégal te nit ñi daan amee dara réew mi ren kilewul réew mi ren xam ngeen ni tabaarkalla doxul naatu wax dëgg yàlla yéen a ngi dimbale nit ñi ci dund dëgg dëgg la sax yéen a ngi dimbali ñu ci dund ak waaye xam nañu ne seen loxo jotul seen gannaaw waaye xam ne yéen itam yéen doon di kilifa yi seen loxo jotul seen gannaaw te li ngeen sumb bari te na yi ngeen sumbi bare na te li ngeen nangu ñu bari ci état yi nanguwuñu te ko kat li ngeen nangu nag état yu bare bare nanguwuñ ko ca ña ña ñu yili di wuutale sam sa njaboot ca bitim réew di yalwaan di leen di di leen wutale seen njaboot ci bitim réew te dëgg di yelwaan di man- def di indi ci man même réew man sama tànk gudd waaye am na fa ma dem de mais moom fu- fu- ba- bari na fu mu dem de amul fu mu demul amul nit ñi nag am nañu tiitaange nit ñaam nañu nag tiitaange problème la boo xam ne mais problème la boo xam ne bii dëgg-dëgg rek la dégg-dégg rek la ñi nga xam ne dañu ami tool te fay ñu impôt ñi nga xam ne ñi dañu amee tool te fay ñu am am na benn solution boo xam ne yaakaar naa ne am na benn solution boo xam ne bii yaakaar na ne su ngeen ci d'accord ñu waxtaan ci ak nit ñi su ngeen ci d'accordee ñu waxtaan ci nit ndax ñun ñëpp dañu war a dimbalante ndax ñun ñëpp dañu war a dimbalante ni ko ko yàlla ni ko bëgg yàlla bëggee te benn raw te bo- loo xam ne mooy tax ñu juboo nekk benn te benn rawu ci rek lii tax nu juboo nekk benn da nga gis koo xam ne li teg na loo xam ne li teg na loo xam ne da nga def rek coxara tax da ngay koo xam ne si da teg na la loo xam ne da nga ne soxarta mu teg la ko déedéet fekk déedéet loola war a am ndax la mu la teg loolooy dëgg moo war a am asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mais suñu borom wax nanu ko bari na lool lool lool boo sibee lépp ni lii daal bu dikkee mosu bu réy ci man la fekk yiw la ci yow Yàlla- bari na ma bëgg ñëw la fi bëgg la bëgg ko lool daw jëm ci fekk mosu ba rek te yow xamuloo ko yàlla jàkk na mu waxaat ne yàlla waxaat ni asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum nee وي- وي- حتى التقوا شان وي- ويجعل الله فيه خيرا كثيرا mais bari na it loo xam ne lii da nga ko sib te sunu borom tabaraka wa taala def ci mbir moo xam ni yiw lay doon wu bari يونس صلى الله عليه وسلم نه nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na رب نقمة في طيها نعمة ورب نعمة في طيها نقمة nee yonent bi sallallahu nee na bari na lool xéewal goo gis waaye mu nga lë lë lë nëbb ca biir mbugal fitna nattu nee bari na nattu boo gis di ko métti lu fekk yoo la mu ëmb yiw rek la bu dikkee rek a kontaan ñu ñaan yàlla ñu ñaan yàlla dimbale leen yàlla dimbali leen eey waxtu waa ngi ñëw kat nee waxtu waa ngi ñëw ku ci fayul impôt ku ci fayul impôt danañu jël sa tool danañu jël sa tool naxanteeg ñoom ngeen ndaxante ñoom te di leen nangul ñoom it ñuy def effort lu waay am rek dal di ngeen yóbbu nangul nag ñoom it ñu def effort nag lu waaye amit daw yóbbu ko nag bàyyi tëdd rekk nag tëdd ci loolu su ko defee ñi- kilifa yi yëkkati seen baat su ko defee kilifa yi yëkk seen baat su na noonu baax nee noonu baax na lool na borom réew mi ak kilifa yi na nu madat na ñett yoon مددنا أيدي الضرعة والابتهال والتذلل والتواضع متوسلا بجاهك أنت وبجاه جديك الأعلى والأدنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشخص الأحمد التجاني لتكون وسيلة بيننا وبينهم وتطلبون لنا من الله سبحانه وتعالى ما هو أفضل للعبد بينه وبين خالقه tàllee seen loxo nee ñëpp taal seen loxo اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم